mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu njiit dafay am kàddu njiit day respecté kàddoom njiit warul salfaañe kàddoom loolu la président de la république Bassirou Diomaye Faye def décidé na dissoudre assemblée nationale loolu du débat sénégalais yépp xam nañ ne am na droit dissoudre assemblée nationale conseil constitutionnel firndeel na ko waaye avant loolu dafa am njombe bu rëy bu mu def moo tax explication yu bari yépp mu ñuy def ci message boo xam ne li nga ci waroon wax yépp premier ministre waxoon na ne di nga ko wax ba pare woon na ko ba waaye bëgg nga ci ko profiter pour indi explication ci njombe dinga xamante ne dafa jëm ci parjure ñàkk wax lu dul dëgg ñàkk respecter les institutions foowee sénégalais yi ndax askan bi ndax dama leen di fàttali ba premier ministre waxee ne motion de censure du am man mii nee naa bëgg naa xam nan lay def ba du am ñu évoqué article 84 bu constitution article 84 bu constitution rek doyul woon parce que article 84 bu constitution su la mayee priorité ci ordre du jour soo indee say loi diligence bu assemblée di def mën nañ ko traiter très rapidement ibbiwaat beneen session extraordinaire pour député yi parce que li defoon ci temps bi bëri woon na avant ñuy la yegg le 12 waaye ci biir dañ see tëmbal déclaration de politique général déclaration de politique général soo ko dugalee mooy article 97 bu règlement intérieur bu assemblée nationale daf lay gën a yokkal délai bi ne la sooy fixé date bi dafa war a nekk huit jours au moins moment bi nga ko yëgalee waa assemblée ma bindoon fii na leen lii nekk ci suuf moom luñ ko ci dugal loolu lañ ci jublu parce que article quatre-vingt-dix-sept bëgg a waaye jóguñu pour def déclaration de politique général président nag jëlu woon date ba assemblée nationale jëlee dat moom ci boppam dafa bind xaatim ci pouvoir yi ko constitution may daal di ne le 13 dina am déclaration de politique générale ba muy wax loolu xaatim ko xam na ne ne déclaration de politique générale boobu naxe mbaay la woon daf ko doon wax pour muusantu daf ko doon wax pour foowee askan bi daf ko doon wax pour foowee institution yi ñàkk respecte sa kàddu gëm na ne li ngay wax nii naroo ko moo ñu indil situation bii ñu nekk muy situation bi nga xamante ne VAR mooy la première opposition VAR mooy chef de l'opposition parce que li ñu doon wax démb méngoowul ak lu ñuy jëf tey ba tey sénégalais yi nga xamante ne amoon nañu espoir ba mobiliser pour voter ñen ñi préféré nañ soobu ci biir géej dañuy wax nag le président de la république na démissionné wala ne ne àttanul lii mu yenu wala ne sax ne jëlul sax décision nekk président de la république parce que nekk président de la république mooy la plénitude des pouvoir nga jël ko téye ko waaye dafa nekk rek toog pour chauffer une chaise et surtout bëgg a profité ci position bu président di am ñu jàpp ne ne su dee élection dafa war a am élection bu sénégalais yi nga delloo leen njukkal mooy nga ne leen ay la yéwén mënumaa nekk président de la république nga tekk sa ndomba tànk def ay élection anticipée ki nga yéene te jàpp ne mën na ko nekk su ko sénégalais yi falee amuñu ci benn problème ñuy ànd ak moom ànd ak moom ñu àndul ak moom yu ñàkk ànd ak moom jàkkaarloo ak moom fii nag ñu bëgg yóbbu réew mi mooy fowee les institutions mais surtout fooye fooye les différents pouvoirs tey le pouvoir exécutif gis ngeen niñ koy gérer premier ministre moo ñuy wax kañ la président di génn décret kañ lay dàq ay président institution kañ la war a wax ak sénégalais yi gis ngeen pouvoir judiciaire niñ koy gérer premier ministre moo ñuy wax kañ la reddition des comptes di am kañ kan ñan lañu war a téye war ñoo génn territoire national ñan la yat bi war a dal tey il gère le pouvoir exécutif il gère le pouvoir judiciaire beneen pouvoir bi moo def le pouvoir législatif mais foofu ay tàccukat lañ fa bëgg ñu leen di tàggal seeni maam ñi leen tàcc woon fële si UCAD bañ ànd léeg Mélenchon mu ñëw def apologie ji góor jigéen ñi leen tàcc woon fële si Grand Théâtre ñuy menacer presse menacer ñëpp genre député yooyu lañ bëgg biir assemblée nationale jàpp naa ne ñun décidé wuñu askan bi mooy décidé dañu war a xam ban Sénégal la ñu bëgg ak ban Sénégal la war a taxawu ak ban taxawaay la ñu war a am par rapport ak situation bi jàpp nañ ne benn Sénégal warul nangu loolu mu am ndax soxla nañ ñu leen contrôler soxla nañu ñoo xamante ne war nañ leen orienté soxla nañ ñoo xam dañu leen teewal askan bi défendre leur intérêt loolu laa si bëggoon wax si kàddu maa leen di jox rendez-vous très bientôt jërëjëf